bigëm yàlla subhanahu wa ta'ala nanga tegtaloo alquran ak sunna te wut wasila ndéem bëgg ngaa mucc ci yàqu-yàqu jamono na nga tànn ñi ngay àndal na nga takkoo ak jaamu yàlla foo mën a ne subhanahu wa ta'ala dal rek